ñu ëpp ci sénégalais yi daal nañ koy ràññee xàmmee lool moom Ousmane Tounkara moomee nag daal na yëkkati ay kàddu daal di joxe ab xibaar nag jëm ci journaliste bii di Pape Alé mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool ci réew mi di Sénégal saa mu nekk rek muy àddu di yëkkati ay kàddu di ko jëme ci li nga xam ni moo di tolluwaay réew mi di Sénégal ka nga xam ne rek moo di Ousmane Tounkara di wax ne jamono ji nag ñi nga xam ne ñoo féete ci nguur gi nag lañu bëgg rek moo di jàppoo ka nga xam ne rek moo di Pape Alé dal di koy jàppaat dugal ci biir kaso bi Ousmane Tounkara Tounkara mooy daal di yi nga xam ne saa bu nekk ko leeral ñi nga xam ne ñoo di askanu euh, Sénégal loole nag def leen daal di metti moo tax jamono ji nag la ñu bëgg rek moo di jàppaat ka nga xam ne rek moo di Pape Alé Niang daal di koy dugal fi nga xam ne rek moo di ci biir kaso bi moom Ousmane Tounkara di wax ne jamono ji nag la ñu bëgg rek moo di euh, suñ ko euh, jàppaatee nag dañu ko ba rek 2024 daal di passé ndax kat li nga xam ne jamono ji nag ma ngi koy daal daal di joxe rek moo di information yi nga xam ne jamono ji ma ngi koy daal di génne neexu leen benn yoon moo tax jamono ji nag ña ngay def ay pexe euh, pour rek jàppaat ka nga xam ne rek moo di journaliste bii di Pape Alé Niang Ousmane Tounkara day wax ne jamono ji sax ñoom nag la ñu bëgg rek moo di suñ ko jàppaatee nag duñu ko bàyyi benn yoon ba mille vingt 2024 daal di passé moo xam day xiifal grève de faim lu man di def daal lu tax ñu bàyyi ko moom pap Alé